Euh, le conseil constitutionnel ne doit-il pas reprendre les opérettes justement du contrôle de parrainage parce que coow li bari na ci lool euh, ban ban jàngat ci loolu. waa man de je mise pour euh, la seconde option bi mooy conseil constitutionnel defaat comptage wala vérification. wu mhm. parrainage yi. Mhm. parce que boo déggee li liñ ci wax yépp comme problème. te Sénégal am na expertise bi pour mën koo résoudre donc c'est l'occasion. Mhm. ñu mën koo utiliser. Euh, ay clé yuy bëgg loolu am na solution. du point de vue informatique mais aussi euh, lu jëm ci ay erreur de frappe parce que erreur de frappe lañ ko mën a tuddee ci yenn mooy yi niñ ko bindee ak peut-être niñ ko saisiré man man pour man loolu sax c'était pas des motifs yu ñu mën a euh, rejeter un candidat c'est trop léger c'est parce que tamit erreur de saisie mënoo cee jël euh, prétexte pour mën a éliminer un candidat mm surtout que humainement sax dafa compliqué quarante quatre mille jëm cinquante huit mille nga saisir ko ci machine loolu rek humainement dafa yombul léegi nag nit ki su fekkee ne ay erreur de frappe la ci wàllu tour bi wala ci date de naissance wala dara ñu may la sax nga mën a def correctif pour man war na mën a nekk ndax parenage papier bi lan lay jëriñ. man parrainage papier bi moom ma jaaxal man. donc lan lañ ko doon doyee di dem di retirer ay fiches mm, rien. du tout alors que loolu noonu deuxième rempart la waroon doon su fekkee ne vérification électronique bi am na problème ñu dem ci veri format papier bi pour mën a seet méngale. ndax li ñu bind fii ak li ñu bind fii benn la pour man loolu lu tax ñu occulter ko ci vérification yi parce que c'est pas forcé que vérification électronique bi rek moo war a jàllale candidat bi kon su dul loolu kon nañu ne c'est le parrainage des informaticiens dafa mel ni ay informaticiens liñ liggéey loolu la ñuy évaluer alors que war na dem au-delà ndax mbir mi authenticité parrain yi rek yaakaar naa mooy l'objectif kii nga ne parrain na la ndax existé na ndax sénégalais la ndax mu ngi ci fichier bi c'est l'essentiel le reste pour man jaru woon di ci recaler ay candidats je pense que intolérance am na ci ci rejet yi mais aussi euh, vraiment recherche pointue des na ci recherche pointue mooy su format électronique bi convenirul ñu dem ci format papier bi évidemment mais nag mënoo ñëw parce que électronique bi doxul rek automatiquement tu rejettes la candidature. Mhm. loolu noonu lu ñu war a rectifier la et mooy ces couacs et euh, mhm. et euh, ces ces yi nga xam ne informatique surtout moom ñoom ñoom la ñu dénoncer euh, les candidats spoliés et puis neexul ci xol euh, ba dénationné nañu ko et puis ñu ci bëri sax fa la ñuy jaar Ndeye Fatou laaj ci la crédibilité du du parrainage surtout avec certaines. Euh, euh, candidature euh, validée au détriment quand même il faut le dire des des des vrais acteurs de l'opposition ci mel ni aujourd'hui wax nañu ko Mimi Bougane Abdourahmane Diouf entre autres alors est-ce que le Conseil constitutionnel encore une fois ne doit pas tout simplement reconnaître que les opérateurs de contrôle du parrainage ont été biaisés mm-hmm. depuis le début et puis bu ñu ko doon wax rek ci làmmiñ xayroon mais il yu a eu démonstration des ingénieurs informatiques yi nga xam ne démontré nañu mbir mi ay la yiwil wane ne y a des problèmes conseil constitutionnel dañoo war a dañoo war a wax ci ressaisir parce que quand des experts parce que ñooñu dañ leen di jàppee comme des experts voilà. en informatique bu ñu amee quoi yu ñu souligner am ay erreurs yu ñu wane loolu conseil daf ci war a profiter moo tax je demande à tous ces recalés ñu def recours c'est pour man nañu poser cet acte juridique mooy def mmh. recours mmh. bu ñu defee recours ça va permettre au conseil su fekkee ne bëgg na ñëwaat ci vérification yi mu mën mmh. leen a waan ñu defaat vérification donc moo tax moo tax ce jour les candidats recalés vont rencontrer l'Union européenne oui. euh, d'abord avant peut-être recours boobu ca conseil constitutionnel Mimi et Bougane vont vilipender <laughs> le président Macky Sall euh, pour être rétablis euh, justement dans leur euh, droit et de pouvoir participer à la présidentielle loolu yëpp itam donc c'est une bataille politique bi waa ñëw je pense que ni est-ce que mën na doon mm-hmm. euh, li mën a impacter ci seen parce que ñoom lu ñu bëgg moo ñu rétablir leen parce que dañ leen tooñ. dañ leen tooñ parce que bu fekkee ne ñoom dem nañu ñu parrainé leen ñu ñëw ñu ne leen euh, tant de personnes yi leen parrainé nekkuñ ci fichier bi alors que ñooñu yor nañ carte d'identité am numéro électeur et tout ça pose problème. loolu aussi lu jaral lijjanti la mm-hmm. mais euh, dem wax ak Union européenne loolu acte politique la. Mm-hmm. mais parce que tamit boo deful recours duñ la mën a xoolaatal càmbaraatal sa dossier ba li nga ciy sàkku nga mën koo gaaw am ñoom li ñu war a def nañ def gis nga dans la vie il faut pas dire que li may def ni jëruñu dara yow fais sa que tu as à faire au soir boo tëddee au moins di nga xam ne yow li la war def nga ko keneen ki bu deful li ko war après moom la. donc ñoom li leen war mooy nañ def recours bu ñu siisu ne du ñu def recours nañ ko def quoi qu'il en soit ça bu amee brèche bu ñu mën a defee vérification waat ñu defaat ko. dem nag wax ak union européenne union africaine loolu yëpp acte politique la seen sañ-sañ la ndax ay observateur lañ te chaque fois élection bu amee dañu fi yónnee sax ay mission yuy ñëw di assister donc ça yooyu ay paramètres yu ñu yor la pour bu ëllëgee bu ñu amee scrutin ñu mën a seet en amont ak ci biir euh, scrutin bi nan la demee ak yan mbir lañ leen ci signale woon ñu gën koo mën a bàyyi xel mais au delà moom nañu def seeni recours conseil bi aussi ñu xam ne lii affaire u informaticien la comme affaire informaticien la parce que tu entends même des candidats. di mhm. wax ne conseil constitutionnel recalé ma. waay informaticien moom informaticien moom mais c'est ça. mais bu ñu ba un informaticien. moom mooy jugé. ci destin wu quelqu'un bu porte un projet de société loolu aussi saa pose problème parce que man bind na ma ne conseil man je pense pas que euh, maitriser nañu. seen liggéey ce qui se passe. du seen liggéey basé wu rek ci le leen technicien bi di wax loolu aussi c'est un problème. te technicien bi du agent assermenté ñoom ñu nekk ci conseil bi nekk les sept sages ñoom ñoom ñooñu ay agent assermenté lañ mais technicien bi c'est un technicien un informaticien donc moom ci li muy liggéey moom. xëy na am na ci expertise mais contre expertise aussi baax na ci loo gis ñu indi nit ñi maanaam ñoom ñi seen informaticien candidat yi ñu recalé yi ñu proposé ñu ñëw def confrontation hmm. avec les techniciens hmm. du conseil pour man aussi loolu dafa gën a baax ci transparence ndaxte du benn décision rek la war a jógee ci benn côté comme ñii ak ñee ñoo bokk li ñuy jàng bokk li ñu maîtriser mais nañu toog ñu confronter kii ne sama clé bi lii laa ci liggéey kii ne ko bi may vérifier lii laa ci gis ñu xool on verra fan la erreur am kan moo nekk ci défaillance ak kan moo matewul te nee naa la loolu rek doyatul c'est trop sérieux pour que ñu yem rek ci vérification électronique parce que fiche yu ñu retiré woon DGIE loolu war na servir à quelque chose te loolu dafa war a ñëw nag après en aval su fekkee ne vérification électronique bi posé na problème mais gis nga le combat de fonds man moment bi Mohamed mooy ces milliers de personnes yi ñu ne nekkuñu ci fichier électoral bi. te ñuy ay sénégalais. ay candidats ñu ne la néew nekk bokk nekkuñ ci fichier. nekkuñ ci fichier bi loolu. moo nekk lu ñu war a lijjanti parce que euh, bu dee chiffres yi ñu ci avancé loolu la fa bëri de loolu buñ ko dindee ci électorat Sénégal. surtout que ñu xam ne fii élection mosuñoo am élection boo xam ne 4 million d' électeurs voté nañ toujours c' est 3 millions et quelques. 4 millions mosuñu voté pour présidentielle bi it ah. mën na am dinañ am taux record mais mën na nekk ci kii yooyu noonu waa léegi ñi wax yëpp nekkuñ ci fichier bi dem ba ay 900000 ou 1 million d' électeurs ñooñu buñ dindee koo ci scrutin bi lan la nar a jur loolu baaxul. pour man dafa jot nag ñu lijjanti kaaw ñooñu et puis fichier bi ñii di candidat yi xëy na dañoo dem nii rek ak pas-pas mais nan la ñuy demee alors que kenn amul ci fichier bi parce que fichier bi liñ ci décidé. ci code électorale bi bi ñu ko ciy def c'est parce que boobu parrainage amutoon. 15 jours avant. 15 jours avant c'est parce que parrainage <laughs> amutoon. mais léegi comme parrainage am na. ñoom war nañu mën a am base de données fichier bi bu ko defee ñu bañ a def erreur parce que fichier boobu mooy permettre ñu dindi ci ñi nga xam ne dañoo euh, wàññeeku ñi fi toxu ñi génn ci réew mi mais aussi ci diggante sax dëkkuwaay parce que comme parrainage bi ci ay région la lu ci ëpp il faut valider au moins sept régions yooyu noonu ak mobilité nit ñi ça pose problème des fois man mun nga ma xam ma jox la sama parrainage fekk ci diggante bi jóge naa Dakar dem Tamba wala ma dem Kaolack est-ce que ma parrainé woon la ci sa liste Kaolack bi maanaam ci électeurs yi ngay valider Kaolack gënul efficace pour yow que ma di la parrainé ci électeurs yi nga xam ne da leen di valider à Dakar surtout que bu fekkee ne moment yi ci diggante bi changé naa lieu de vote war a donc il faut que ñoom candidats yi ñu am des informations nécessaires sur le fichier. absolument léegi nag quant ay fichiers yu ay candidats disposés ba valider ci seen parrainage ah loolu man munuma koo seede mënuma ko wax aussi parce que ce serait faire des accusations mm-hmm. Mm-hmm. et nit luñ la laaj te mënoo koo prouver moom bul ci aventurer wu <laughs> xam nga boo fi waxee ne am na ñu yor fichier bi am ñu ko yorul buñ la nee génnee ko foo koy jëlee te bu dee sax am na ñu ko yor duñ la ko joxit donc dañuy dem rek ci bonne foi que ne conseil bi y a des techniques au plan informatique mhm. ñoom it nañu am ouverture ci ñu jéem a rectifier def confrontation entre experts des candidats et ceux de du conseil ñu seet lan lañ mën a régulariser ci candidats yi nga xam ne dañ ko recalé alors Serigne est-ce qu'on ne pas euh, en termes clairs stopper